Ah, ni nga wax ci borom daaru moom ci léegi képp kuy tudd na waaw mhm. ah, ah, waaye fas na yéen na yéen julli di mbokk taalibe yi ñu ngi dellu si waat ci ndigalul sëriñ abbas mbàkke moom borom daaru moxti ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te di leen woo ci màggalug daaru moxti gi nga xamante ne dañu koy amal le 5 mai incha allah 2018 à Aulnay-sous-Bois de midi à une heure du matin ci salle Chanteloup 1 rue Nonville 93 600 ñu ngi ci woo mbokk taalibe yëpp ak mbokk jullit yëpp di ci woo rawatina daayira yi nekk ci Île de France yëpp rek bàyyiwuñu kenn kenn kenn kenn ñu ngi leen ciy soññ ñoom ñëpp di leen ci woo ngir nu ànd koog nun di ci soññee bu baax nag rawatina di fàttali ni moom bisub murid yëpp la bisub ngërëm la bisub njariñ la te eh, lii firnde li rek mooy karoog bi sëriñ bi jóge ci géej gi ba dajeek borom daaru cant yee yegg na ci cerno su doon maa demoon nga des fii ndax danaa man lii nga man kon nag loolu dayub cant la kon nag képp koo nga xamante ni bëgg nga dugg ci biir cant googu ak biir ngërëm loolu ñu ngi lay woo ngir nga ñëw ànd ak ñun ci taxawaay yëpp rek kon nag ñi ngi xamal ñëpp ni ren ji bis bi des na ci fàttaliku yi nga xamante ni at yi yëpp moom moo ci doonoon sunu jëwriñ ñu ko daan ànd moom muy Serigne Mame Balla Mbacke ñu ñaan sunu boroom yokk ko ay leer yu bare bare bare bare ci barki Serigne Touba kon nag loolu mooy bis bi. Ah, ndax nit ah, nan ko wàññee ko wala nga ko liggéey baax ko loolu mbàkk noo ngi ñaan nga ñaan ko leera ngi jooy laylan ba daa bayima ca moomaat sunu weeru wa jooy naa naa xilawul korom na tooba ma jooy si saa ndaama la sañcan daaru